ca cité Sokabek quartier Tawfeex bu commune bu Tivaouane Fël fi mu dëkk Chérif Assane Ndiaye mu ngi yëngu ci wàllu entrepreneuriat moom ancien émigré biile bi nga xamante ne mi ngi bawoo ci réewu Maroc daal di ñëw sumb fii ab projet. entreprise bi euh, mu ngi tudd Kan Production Kan Production euh, mu ngi yëngatu ci wàllu euh, impression photocopie tirage. Euh, photocopie tirage euh, plastification flocage maillot flocage t-shirt euh, tasse personnalisée impression numérique banderole affiche flyers ci yooyu la ñuy yëngatu en parallèle aussi tamit ñuy defaale dans le domaine de l'électricité et dans le domaine euh, des procédures d'études de voyage euh, au Canada. ingénieur électricien bii te it judo ci Tiwaawoon Pël daal di am taxawaay bu mucc ayib ci projet bi nga xamante ne moom la tàmbalee. initiative entreprise bi nag euh, lu am solo nga ma laaj parce que man dama nekk koo xam ni dama mës a gëm ni je dois mettre en place quelque chose. Euh, c'était sur ça j'ai fait ma formation en génn liggéey ci entreprise euh, bàyyi euh, continuer liggéeyal sama bopp naa le domaine de l'électricité à un moment donné ma dem Maroc def foofu seize mois liggéey foofu bi ma xoolee coono bu may daj foofu ak euh, effort yi may daj ci dëkku jaam je me suis dit su ma ko defee sama dëkk pourquoi pas donc ci loolu laa jëlee décision ñibbisi d'ailleurs bon amoon si ndigalu waajur aussi tamit mu doon sama papa ma toog fii gëm ko waxtaan ak paa bi kilifa gi mu ne xamal ko li ma bëgg moom it mu encouragé ma si parce que loolu la ma mës a conseil donc une fois man ak sama grand frère euh, ci otoom ñuy euh, dawal muy dawal di dem après sama idée ma xalaat ni euh, pourquoi pas ma créer une marque de vêtements marque de vêtement boobu ci idée boobu ci l'entreprise bu jógee. moom mile ba mu jógee Maroc ñëw ci réew mi mi ngi commencé projet biile ci ñaari junni ci français CFA boobee ba léegi ñu gis taxawaay bu baax ci wàllu wi. ci yaa créé marque bi euh, mu nekkoon Canne wala Down euh, je pense que bi ko commercialisé wax dëgg yàlla yàlla def ci sutura bu bëree bëree bëri bëri. Euh, nit ñi bëgg ko ñi ma xam ñu si bëri aussi tam jàppale ma ci vraiment jënd ko fu nekk Argentine partout dans le monde képp ku ma xam rek commandé quatre cinq ñu ci bëri vraiment jàpp ci ba affaire dem ba production bi ëpp ma doole donc ma production bi ëppee doole dama daan dem di dem ci gars yi ñu ma koy defaral donc au delà que production buy màgg donc li ëpp solo kon te muy baax si man mooy ma jéem a am man sama unité de production bopp ci loolu laa ko xalaatee Euh, commencé di ci nekk di ci góorgóorlu vraiment mu nekkoon nag début bu bu metti bu compliqué parce que j'ai démarré avec dix mille francs dix mille francs laa démarré defaroon ci deux t-shirts deux la Lacoste commencé di commercialiser dem di dem di dem vraiment di ci jàpp à l'aide avec l'aide d'un frère qui s'appelle euh, Cheikh Ndiaye donc euh, moom it mu jàpp si aussi je salue au passage aussi tamit. le président Moustapha Gueye parce que il a beaucoup contribué nag pour euh, vraiment ci entreprise bi. tey jii structure bii nga xamante ne moom lay jiite mu ngi gën di mag waaye it mébét ba mu am gën di am solo jëmale ko ci askan wi. Euh, alhamdulilah yow yaa gisoo sa bopp fi nga ñëw je pense que ni euh, matériel bu fi nekk c'est quelque chose donc avec un démarrage de dix mille francs. ñu gëm ko di liggéey sacrifié wu nag muñ lu bëri euh, def ay jël ay risques aussi tamit pour mën avancer. te su ma fi ubbee au moins je vais régler un problème parce que boobu ku bëgg a def tirage ku photocopie yaa ngi dem ba Parcelles Kër Massar wala Guédiawaye donc boo fi amee urgence war a am loo photocopier war a génn doo ko photocopier su dee dimanche xamal ni c'est ci bànkaas biile mu daal di fa it sos formation professionnelle ak yeneen service ngir mën a dimbale ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk ci commune bi. bi pratiquement man je travaille avec euh, quatre école presque nekk ak ñoom partenariat et à chaque fois euh, ci élèves yi nga xam ni dañ fi ñëw di def ay service dama ciy ràññee ay élèves yoo xam ni à chaque vacance dama leen di may possibilité pour ñu mën a ñëw ma leen di former en informatique. naa jël parfois ba quatre à cinq élèves ñëw di leen may ay formation en informatique parfois aussi tamit maa ngi nekk en partenariat avec NTJ ay jeunes aussi tamit yu dynamique yoo xam ne école de formation lañu yor sur la euh, pâtisserie restauration parce que ku yoo xam ne ku ñuy préparer en formation tu aussi préparé en entrepreneuriat pour que après soo paree nga mën xam exactement fan ngay teg sa tànk aussi tamit euh, damay fexe aussi tamit opportunité bu maam comme ça formation wala wala wala wala bourse wala quelque chose comme ça aussi moo ci fexe bénéficier wu waa jeunes yi nga xam ñu ngi nekk ci dëkk bi amuñu lu ñu def wala amuñu les moyens pour dem defi formation ou comme sax donc en tant que jeune bu dëkk ci gox bi euh, je participe de mon mieux pour euh, jàppale suma jeunesse gox ak suma gox aussi parce que entreprise bi du pour man pour gox bi la c'est pour régler les problèmes de la localité et alhamdulilah Dieu merci je suis le premier jeune bu investir ubbi fi entreprise. donte ngir ñu dugg ci Tiwaawan Pël cité Sokabek jafe na lool ndax melokaan yoon wi waaye mébét bi Assane am moo di taxawal ay centre yu bëri ngir xale yi di mën a formé wu ci wàllum informatique. du ñu yem rek ci lii ah, parce que ba léegi comme yow yaa ko waxal su bopp fi ñu nekk dafa enclavé manquement yi dafa bëri trop trop trop. Euh, duñu yam ci entreprise parce que li ñu bëgg en fait euh, mooy ouvrir une centre de formation en informatique et en anglais parce que tey ñëpp xam nañ ni jamono bi foofu la jëm euh, anglais mooy làkk bi nga xam ni mooy ñëpp pratiquement boo génnee moom la ñëpp di wax informatique c'est quelque chose boo xam ni ça doit être man dama jàpp ni sax dañ ko war a inclure sur l'éducation à la bas age pour euh, élèves yi vraiment parce que fii souvent dama fi gis même les gens qui ont eu le bac bu ñu ñëwee fii ñu sax mën manipuler ordinateur alors que man moi je pense que loolu c'est un grand problème centre de forme centre boo xam ni vraiment euh, pour former euh, élèves yi ak ñëpp ah, ci wàllu informatique ci wàllu entrepreneuriat aussi jàng leen jàngal anglais comme ça ñu teel ko jàng tey jii lu muy digal ndaw ñi nga xamante ne ñoo nekk fii ci Sénégal mooy ñu gën a am taxawaay bu baax te it farlu ci liggéey bi. vraiment di wax jeunesse bi ñu gën a gëm seen bopp vraiment ñu concentrer sur les choses essentielles bàyyi futilité yi bàyyi foo bu bëri bi focus quoi ci seen avenir am ay rêve parce que ni quoi am objectif. Quand tu ne vis pas de rêve, quand tu ne vis pas d'objectif, tu ne peux pas aller loin. Il faut le rêve est permis, lu may wax rek rêver lu la neex mais soo ko gëmee tu peux y arriver parce que tey di nii aussi il faut ñu nangu souffrir aussi en patience parce que man euh, je pense que ci Covid 2020 laa commencé woon je suis à ma quatrième année d'entrepreneuriat et tey laa gën tey la gën a metti parce que je suis endetté je prends des risques mais c'est comme ça kii connaît entrepreneuriat xam ne entrepreneuriat ak risque ñoo ànd mais on travaille on avance parce que il faut ñu xam ne aussi un projet ça se développe au cours de cinq ans du loo xam da ngay ubbi deux mois trois mois nga ni doxul ak non man bu may doo ubbi en pleine Covid c'était très compliqué très difficile mais j'ai pas baissé les bras tey laa gën a gëm. et alhamdulilah ay sant yàlla l' entreprise mi prospère ñu ngi avancé donc jeunesse bi nañ gëm seen bopp nañ am ay idée am ay objectif am ay rêve